Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidul Maxtar Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa njabootug Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom Xaadim Rasoul yebal na délégation ñu demoon ci Cheikh Ahmadul Maxtar Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xuddoos jébbal ko fanweeri million ak ñeent yu teg ci sunuy koppar di àddiya joo xam ne ñu ngi ko dajale mu jëm ci liggéeyu complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke Bachir xalifa général des Mourides moom la naal ci bërëb bu sell bi di Touba. mu yebal sëñ Abdou Karim mii di xalif sëñ Abdou Si Baara ak sëñ Baara Karim imam xalif sëñ Abdou Karim ak sëñ Modou Baara xalifa sëñ Abdou Khadim ak sëñ Baara Baara Abdou Khadim mii di xalif sëñ Abdou Khadim mu ànd ak sëñ Moutala ak sëñ xadim Cheikh Sidi Maxtaar ak sëñ ñu ñëw doon siyaar si tey feddali lépp kilifteef gi ak taalibe gi ak yëpp mi ngi koy feddali di wax ni njaboot gaa ngi noonu sax njaboot lañu saa suñu xëyee incha allah sax ci sa ndigal rek lañ fas yéene def te duñ ko mooy mukk mi ngi lay jébbalaat lépp itam di indi barkeeloom ci liggéey bi nga xam ni moom mooy sas bi ñu euh, doon naal ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi euh, jamono nag moo xaw a xat ci ñëpp moo tax sax mu xaw a diib li ñu indi te naqari jamono feeñ na ci sàkku rek nga nangul leen nangul ko àddiyee ji te nga ñaanal taalibe ñaanal njaboot gi ba liggéey sëriñ bi kenn mën leen cee bañ a man di leen seeral sant gum sant itam ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nee na sant la leen sant goo xam ni mën ko sax misaal ndax jàpp nañ ko jàppale nañ ko te lépp lu mu soxla mbaa mu woote ko fu ci waaye nekk di nga bàyyi sa soxla ñëw àndi si ko ak moom kon mi ngi lay seeral cant gum leen cant tey sàkku nga ñaanal leen bu baax bañ gën a mën a ànd liggéey bi di am mbégte lool ci yow itam nag te di la sant di gërëm di ñaan nga yàgg ci barke Cheikhul Khadim ndax nee na Cheikh Sidi Matar ak ñi ko jiitu ak kilifa yi mënoo su leen ñàkk bañ a xalaat waaye nag jaaxlewuñu ndax sa taxawaay ci seen ci wet ci wetu kër gi sa taxawaay ci njaboot gi xel dal bu baax a baax ci yow ñu yee jébalaat lépp tey ñaan yàlla suñu borom gudd sa fan te may la wér barke Cheikhul Khadim sëñ ndax li ñuy wax rek sëñ Abdou Karim mi jumaa ja nekk Mbàkke Kajoor moom la ko sëñ jox ndigal moo koy yeesalaat waaye teewul nag li mu war a joxe ci liggéey bi joxe na ko kon nag noonu la ko ñëpp kenn ku nekk ci ñoom lu mu sant ci yow lu la sant noonu nga koy taxawee kon na nga ñaanal leen ñoom ñëpp suñu baat laata nga ne mooy jàkk ji nag guy mbind ma nga cay nab nabi moom itam ma te ñoom ñu kenn ku nekk la la war ci kër ga yaa nga ca kon nga ñaanal leen bu baax euh, ba li ñu yéene euh, ñu man ko parce que Cheikh Khadim liggéey bi nag fanweeri euh, million ak ñeent yi toog juróom ñett fukki junni ak ak weccet waaw ginnaaw kàddu yi Serigne Cheikh Thioro yi lee Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma tontu na leen ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacke santaat njabootug guy mbind gépp ci njiitalul Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Cheikh Sidil Makhtar Mbacke ci pasteef gi ak pas-pas gi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy wane. li li am solo eh, mooy jafe digal rek ak yéene ji ci xam nañu yéene ji moom du fi jóg mukk ak eh, buntu bi ngeen ko jaare ci buntu cosaan bu fi yàgg. bokk ci liy dundal yëf yi loolu mooy li am solo waaye tolluwaaye jamono kenn du ci aj mbir ci pas-pas rek lañ koy aj ndax tolluwaaye jamono dana dem ba feeñ ci kër yi lu ñu feeñ ci kër yi mënut a ñàkk feeñ ci liggéey bi loolu rek la àdduna baaxoo loolu moom euh, feñ ci fépp nag euh, feñ ci ñëpp. ñu ko seqoon ñëpp sëñ biit xam na loolu bu baax li ci am solo rek mooy di ñaan euh, sëriñ tubaa mi ñuy liggéeyal nangu liggéey bi ci daraje yi ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy jaarale sunu liggéey muy Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xam ne ñooy sunu bunt ci lépp yàlla na yàlla na ñu nangul sunu jëf ca eggale nu suñu mébét ca nangul ñu suñu yéene loolu rek defe naa ci gàttal rek doy na. xanaa li ci des nag bàyyi sëñ bi mu ñaanal leen ca yàlla yàggal taxawaay yi ci dolli fi jàmm ak sutura bennoo bi it yàlla na gën a dëgër ak lépp lu koy tax a dëgër yàlla na ko yàlla yéwénal ci jàppandal ko di sàkku it ni ma ko baaxoo di waxee ngeen ñaanaloonu ko euh, ndax seen ñaan euh, lu am njariñ la ci xam nañ ci lu wér ngeen ñaanaloon sëñ bi mu yàgg fi ci yàlla yokk ay ndamam yàlla yokk suturaam ndax suturaam ak ndam mooy suñu sutura mooy suñu ndam ñun ñëpp yàlla yokkal na ko ñun ñëpp ginnaaw bu cheikh ahmadul maxtar mbàkke dajale mboolem addiye ji dana dem jébbal ko cheikh mahamadul muntaxa mbàkke bachir lépp jëm ci liggéeyub complexe cheikh ahmadul xadim bi